tey préfet daf ñu woowoon dajale ñun ñun yëpp maire yeeg délégué de quartier yeeg imam yeeg curé yeeg euh, képp koo xam ne ki yaa ngi ci service yi pour ñu waxtaan ci mbirum coronavirus ku nekk xam ne ne corona feebar la boo xam ne bi feebar bu doy waar la et feebar boo xam ne bii dëkk yi gën a am doole ci àdduna bi jaaxal na leen kon ñu nit bu duggee fii Sénégal war ñoo mën a jóg jël sañuy mutuwaay mais ministre de la santé ministère de la santé yàgg naa jël mutuwaayam balaa mu fiy dugg ñu nit au niveau des districts et des hôpitaux jël nañu suñuy mutuwaay mais nag xeex la boo xam ne bii dafa war a gaaw et ñëpp ñoo ci war a bokk ñëpp ci war a bokk ndax loo xam ne lii xàmmeewul ka am xàmmeewul ka ñàkk xàmmeewul mag xàmmeewul ndaw te boo toogee moytu jokkalante bi moytu yenn yiñ lay tere maanaam di sëqat si foo xam ne fii ni ñaa nga fa nekk dajaloo bi nit ñu bare yeeg euh, saafonte bi nu yonte yeeg yooyu suñ ko moytoo feebar bi mën na fee jóg te boole si ñi jóge bitim réew di nem di ñu yëglu ñu mën leen a neemaku ba feebar bu nekkee si ñoom ñu teel koo saytu mu bañ a law ci askan bi boole si ñu nekk fii aussi bu ñu yëgee leen seen yaram ñu teel a dem ci bërëb fajukaay ñu xool bu ñu njortee ne feebar ba la ñu mën leen saytu loolu daal lañuy ñaax askan bi di xamal ne si fan yi néew ñun district mbuur daañu def lépp li war parce que personnel bi amuñu ci tiit am nañ personnel bu doy parce que comité de développement sanitaire yi jàppale nañ ñu ba recruter nañ personnel bu doy suñu personnel machallah engagé nañu muy goudi muy bëcëk heure bo leen yéké ñu jug minuit une heure deux heures waxtu ma leen yéké ñu jug ragaluñu personnel bi euh, moyens yi collectivité locale yi ñu ngi jappalé ñu ngi xaar ministère yok moyens yi indi ko. fi mu nekk nii nag li ñuy jublu mooy sensibiliser waxtaan ak askan ay si yu néew di ngeen gis dinañu gën a def yeneen activité yoo xam ne yi askan bi dina xam feebar bi daañu fexe moytu jokkalante beeg àndante bi parce que képp ku amul looy dox luy farata boo toogee ca sa kër feebar bi mën na laa moytu loolu ñu ngi si ñax askan te léegi yàlla def na ba téléphone yi mu ngi fi ko namm woo ko téléphone waaye dem nuyoo ji dem toog waxtaan lang nga daayira laa natt yooyu yëpp nañ ko moytu parce que yooyu mooy yi indi wàllante ndax xamuñu ko feebar am na ki feebar te yëgul dara mu gis si biir am na ki feebar di yëg dara te fajuwul mu gis sañu biir te boo ko amee yow foo dem yow bu ko fa feebar bi law loolu mooy indi musiba kon nag feebar boo xam ne bii ni ñu toog seen pal bopp moom lay laaj war nañoo jublu si lool réunion bi xam naa bu ñu ci génnee préfet dina jottali ñamu war a jottali mbir mi. ndax corona comme moom dafa gaaw ñu nit ñu gaaw rek ñu jublu si ndax ñu faagaagal ko mu jeex ñu ñu mën a jublu si leen. quai bi dinañ ci waxtaan ak préfet ñu xool lan la yoon may pour ñu mën a fexe ba corona bi génn fi ndax bu ñu gisee euh, fu mel ni Chine feebar ba fa mu tàmbalee kaa ba njëkk ma nga tàmbalee si marché boo xam ne dañ fa doon jaay ay loo xam ne lii ci géej la jóge kon nag quai de pêche bi jar naa bàyyi xel lépp luy matuwaay dinañ ci waxtaan ak préfet daañu ci jëkk parce que pour aar ña fa nekk aussi population yi